Nous ñu aussi dans le comité régional de développement sur la fonction publique locale La euh, fonction publique locale euh, doit war intégrer la fonction publique de l'État loolu de est présent président euh, pour améliorer les conditions de travail avec l'amélioration des conditions de vie de vie des des agents des collectivités territoriales ndax tey amoon boo jëlee téeméeri ñu fay liggéey juróomi ñoom ñoo nekk ñi nga xam ne dañu apt ci fonction publique de l'État ñu jéem nag ñooñu am seen àq ak seen yelleef ba nga xam ne dinañ mën a am yenn droit yi euh, ci retraite ak ci néggandiku bu baax ci salaire wax deug yalla waaye ci privilège ak sécurité nga xamné dañ leen mëna protéger ci dàq leen ci lu jaaduwul wala ci am indemnité yo xamné mënon nañ ko am te xamuñu ko won ba lool mom sentu nañ ko ci lool mom sentu nañ ko ci surtout ci intercommunalité nga xamné ni ki fay liggéey Tamba mën na am affectation ci collectivité territoriale bu région de Thiès wala bu Dakar te loolu bu njëkk ba mënul woon nekk ndax dañoo fixoon loolu tamit euh, dina tax les agents non fonctionnaires que des agents fonctionnaires euh, am parité avec les les les agents de de la fonction publique de l'État kon loolu yëpp bu ñu koy def ñu ngi avenir ëllëg sur euh, relève bien fait fiy bàyyi wala njaboot bien fait fiy bàyyi Nous mu a am lo xamné traçabilité la te dina leen jàppale ci ay indemnité ak opportunité yo xamné ne mën nañ ko découvrir euh, nank nank Inshallah. bo boo CRD yi commencé nañ ko légui mu mat weer. Euh, monsieur le ministre ñu ngi koy de le ministre euh, Omar Gay des collectivités territoriales du développement et de l'aménagement des territoires Ménagez-vous bien effort les naanul euh, rek pour amal li nga xamante ne ni rêve population bi am les agents des collectivités territoriales ne lii war nañ ko mën a ci